seen seen nu ñu koy wax seen énergie boobu ñuy xeex. Mm. xeex amul benn njëriñ nañ ko diriger ci problème yi nga xam ne euh, moo tënk sénégalais yi yoo xam nga problème yi wax naa coût mm-hmm. de la vie chère. Mm-hmm. wax naa am na ñoo xam ne dañu am problème assainissement. am na ñoo xam ne dañu am problème mobilité. am na mm-hmm. ñoo xam ne dañu am problème mu euh, formation éducation. am na ñoo xam ne peut-être am nañ problème euh, joindre les bouts les les deux bouts. am na ñoo xam ne am nañu problème mhm. euh, xëy am na ñoo xam ne am nañu yeneen problème peut-être amuñu problème xëy dem nañu def ay euh, nu mu tudd ay euh, nu mu tudd ay marchand ambulant mhm. nañu régler aussi problème mu pêche bi jën bi nga xam ne géej bi nga xam ne amatul ay jën ak loolu loolu nuñ koy tuddee ci sax contrat yooyu de pêche yooyu mhm. contrat de pêche yooyu nga xam ne daal lëndëm kenn xamul si dara ay bateau yu mag ñëw di di di di racler le fonds des mers ah loolu du si loolu du si intérêt Sénégal nañu wax aussi ci euh, pétrole bi nga xam ne commencé nañ ko exploiter ak ci gaz bi nga xam ne dañ koy exploiter prochainement nañu wax aussi si euh, scandale yi fi jot am ñi koy tuddee ay Azer wala euh, beneen ay ONAS mhm. wax ci wax ci wax ci yu bëri maanaam publier nañu wax aussi si publier déclaration de patrimoine yi nañu leeral lu bëri nañu leeral yu yu bëri nañu euh, bàyyi aussi ah hmm. nañu bàyyi aussi armée tranquille bàyyi généraux yi ñuy wax tranquille bàyyi waxu sécurité ak force de défense nañ ko bàyyi ci secret défense moo ñu gënal te ñu wax ci. ci ci ci dund li ci Ousmane Sonko wax dernièrement daf la tiital. ah man non. tu ma général Condé d'ailleurs euh, nee nañu dafay porter plainte. man tiital na ma kañ parce que euh, ñun amuñu habitude euh, di discuter si dëkk boo gis. tentative de coup d'état. dëkk boo gis waxuma ne ay tabu de mais dëkk boo gis am na ay secret défense. léegi nag soo soo xawee sa sutura soo sumee sa bopp ci mbedd bi yow yaa ko yëg yow la ñuy gaañ. Mm. man loolu laa si ragal. mun nañ ci bañ a wax am na yu bari mun nañ ci bañ a wax bi ñuy régler ay problème mu Casamance yëpp kenn kenn mosu si wax kenn mosu si wax am na yoo xam ne ni nga euh, borom kër gi nu muy nu muy utee dépense soxlawul mu ci euh, kii séminaire moom liñ ko laaj mooy na indi dépense bi li ñu leen laaj mooy nañu pacifier euh, front bu munti am mm. muy front social front économique front militaire front bu munti doon front écologique front bu munti doon li ñu leen di laaj mooy nañ ko pacifier nañ ko régler nañu régler problème mu dund seen problème sénégal sénégalais et premier problème mooy seen problème mu dund. seen mhm. problème mu jàng seen problème jàng étudiants yi ñu ngi doon euh, kii ñu ngi doon protester il y a pas longtemps nañu wax ci problème économique yi nañu wax pour pourquoi ñuy recourir à JP Morgan en en moins de de cinq mois. pour plus de 634 milliards nañu wax yooyu yooyu mooy problème d'intérêt national te ñu te ñu bàyyi waxu yi ay waxu coalition amul benn importance au regard de de responsabilité yi nga hmm. xam ne nekk na ci épaule euh, ñiy diriger Sénégal actuellement ñiy diriger Sénégal actuellement war nañu am même bu ñu nekkee période électorale hmm. war nañu am yeneen euh, euh, problème yu ñu war a régler hmm. maanaam bu journée bi pare ki nga xam ne mooy président Pastef dafa war a dellu bureau parce que am na ay problèmes yu bëri yu ko fay xaar te yoo xam ne kenn réglé gu ko. en tant que premier ministre alors que en tant que premier alors que ñi nga xam ne dañuy def seen coalition. Hmm. di caravane ak di di di di fecc ak di waxtaan di di di di di promettre ñoom ils n'ont pas de responsabilité au euh, euh, au niveau national comprendre nga. Hmm. voilà maanaam problème yi yi soxal sénégalais ak problème yi nga xam ne mu ngi ci mbaggu premier ministre Sénégal. ak ak président de la république de Sénégal dafa bare tellement dafa diis tellement seen charge dafa diis tellement que je pense que war nañu bàyyi euh, euh, ay fontu politique yi ñu bàyyil ko ñi nga xam ne amuñu benn responsabilité. d'accord pour yow li mu wax ci waxu Casamance bi général Kandé amul woon place am ci biir campagne électorale bi. déedéet amu ci place de amu ci place parce que loolu pour man c'est secret défense man soxlawu ma xam dara ci Casamance. li ma soxla xam mooy li ma soxla xam mooy ñu ngi régler problème bi ñu ngi euh, pacifier euh, front yi munti am fu fu nekk mhm. y compris Casamance mun euh, bu ko naa saa yu ma yeewoo ma dégg ne ah faction bi daf kii na kii na pacifier na signé na accord de paix loolu laa soxla xam naka lañ ko defee naka lañ ko nu koy waxee négocier loolu moom c'est pour l'histoire et c'est pour les euh, spécialiste. Okay. n'est-ce pas et du c'est pour l'histoire c'est-à-dire du pour léegi. Mm. après mun nañ si wax mun nañ si bind ay livres après. d'accord nest e pas. Mm-hmm. nu mu tudd euh, pour man ça n'a pas sa place ci place publique bi am na yoo xam ne mm. waxtaan biir néeg la comprendre nga. même yow si sa biir kër am na yoo xam ne waxtaanu biir nekk la. Mm-hmm. yow ak sa sa jëkkër boo leen di wax est-ce da ngeen koy wax ci place publique bi. c'est la même chose c'est alors c'est c'est la même chose. d'accord jéemati tey no apprécier rôle Ousmane Sonko premier ministre naka nga ko apprécier depuis euh,